Euh, monsieur le maire ñu gis ni tey yaa ngi réceptionné ay table banc fas yéene ko jébbal ñi nga xam moo di école yi nekk fii ci commune bi est-ce que mën nga ñëwaat ci li mel waaw mbégte bu baax rek euh, man la Abdallah Tall maire de la commune de Mboro ànd ci ak sama bureau municipal ñom ñoo and ak man ni donc ànd ci ak directeur d'école yi waye ànd ci ak élèves yi ci seen bop pour euh, wara joxé tay ay tablement ci école Mboro yi ci fukki école Mboro ak ñett ñaari CM yi nga xamante ni ñoom ñoo fi nekk ak fukki école ak benn yu primaire yi nga xamante ni ñoom ñoo fi nekk euh, ba ñu yëgee ne am na ay jafe-jafe ci euh, ci table ci école yi euh, dem nañu seeti ministère waxtaan ak ministre bi wax ko suñuy jafe-jafe ci table banc ba ñu ko ko waxee ñaari fan la ci teg yónnee nañu ay table banc loolu efficacité la loolu mën a déglu la mën a dégg nit ñi la donc loolu ma ci ma ko ci sant bu baax di ko gërëm pourquoi parce que du lu yomb quand mais bu fekkente ne ñun def nañu visite bi ñuy def visite annuelle bi ñuy def dem ci école bi gis xale yi nekk ñaar wala ñett ci table banc xam nañu seenu njàng mun na sooxe ci loola. Mhm. ñu ne nag kon léegi nañu renforcer loola waaye lu jiitu loolu tam nañu wax ne gise woon nañu ak ministre bi ba mu jox ñu fanweeri table banc ak juróom yi ñu yóbbu ci lycée bi. Mhm. loolu nag moo jiitu woon moo tax ñii tam il fallait ñoom itam ñu am mais à chaque fois que ñu dem quand déglu nañu te réglé na suñuy problème. yëg-yëg bu mat sëkk. mooy nit ki nga wax sa soxla ñu déglu la ci ni mu gën a gaawee ñu taxaw ci soxla soxla fajal la ko kon nag loolu laay jiiñ tey maire ne ko wax nañ la sa soxla ci diir bu gàtt nga déglu ñu ci diir bu gàtt nga dox ko ci diir bu gàtt nga lijjanti ko ci diir bu gàtt nga dellowaat ñu ko jox ñu ko donc loolu lu ñuy rafetlu la te loolu la ñuy xaar vraiment ci sunu maire mooy tey jii bu école taxawee am bëgg-bëgg mu xam ne loolu bëgg-bëggam la mu taxaw lijjanti ko ci nu mu gën a gaawee te vraiment loolu moom ñu ngi koy saluer bu baax a baax. ñu gis ni bu école yi rek xale yi dañu faral di dem tablement yi géej gi ban appel ngay lancé jëm nag ci directeur d' yi pour ñu protéger matériel bi de même que xale yi. Euh, directeur yi xam naa ñoom ci seen bopp ñoom a gën a bëgg sàmm seen alal. ndax xam nañu le jàll gàllankoor yi nga xam ne ñoom ñoo ci nekk waaye du teetam fàttali wàññiwul dara di wax ne xale yi suñuy doom lañu waaye xale yi itam xale yi primaire commencé juróom-ñaari at ba ak benn qui ak ñaar dafa am des il faut que ñu fàttali leen alal bi seen alal la te nit boo yoree sa alal da nga koy sauvegarder da nga koy téye téye gu baax ba nga xam ne bu ëllëgee yow boo ko yorewul sax say rakk bu ñu ñëwee mun cee jëriñu. Mhm. loolu donc appel la boo xamante ni ñu ngi koy lancé xale yi à travers les maîtres et les directeurs d' école waaye itam ñuy wax ne ñu ngi jëm ci école buy tëj école buy tëj lu mën a yàq table ban dafa bëri. tey jii bu fekkente ne euh, ardoise yi wala zinc yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci école yi amul étanchéité mu taw sen sen bi wad ci table banc yi loolu tam day détériorer ay table banc hmm. yooyu yépp ñu mun ko vérifier mun a tëj bureau euh, salle de classe bu baaxa baax ba nga xamné ne bu ñu demee vacances wóor nañu ni sécuriser nañu matériel bi. mais yakine bu mat sëkk ci li nga xamné déjà jot na ko fay def parce que tay ci école yi maire appuyé nañu gunge nañu ci organisation essai ci euh, ci ci visite des écoles à travers les les ouvertures des classes ci suñu étudiants yi nga xamné tay ji ñu ngi feulé seen i seen subvention fekki na leen. ci lépp li nga xam ne tey jii mu ngi mooy mur de clôture tey jii tey rek tey jii mi ngi wax ni tey mission Ageroute entrepreneur bi ñëw na def na école Kër Mogo def na école Mbay Mbay Pël def na école Ngay Ngay 2 suma école bi nga xam ne mooy Daaru Marnaan tey jii maire taxaw na pour ñu clôturer ko tabax fa aussi deux salles de classe loolu nag bu amee day doon yëg-yëg boo xam ne ñun ñi nga xam ne ñun ñooy acteur de l' vraiment dañ koy ñaanal rek mu gën a taxaw mu gën a mu gën koo mën mu gën koo kii te population bi tamit ànd ak moom ci li nga xam ne moom mooy parce que liggéeyul pour boppam mais dafa liggéey pour la communauté donc lolo lañ koy ñaanal mooy yàlla na ànd ak wér dal mais aussi fépp nga xam ne tey Mboro soxla na ko fa mu taxaw fa war ko mën a lijjanti te nu mu gën a gaawee. séddale bi ci tablement yi aussi nu muy demee. séddale bi moom mën naa ne du doon sédd dana doon tuuti séddale bukki ndaxte lu tax muy doon séddale bukki moy école yi yemuñu jafé jafé ku ci nek ci table banc amna école yo xamné bo fa démé ba légui ñu ngi ci ñaar par table banc mais amna école yo xamné bo fa démé ñu ngi ci ñent par table banc donc c'est bi dañ koy def en fonction ci école yooyu nga xamné ñu ngi nek à ñent ñu gëm leen soulager mais comme maire limi joxé dafa wara daj kon nak école bu nek di nga mos ci la nga wara ci ca la nu mu toll say jafé jafé fumu fumu tollu kon nak loolu motax mané c'est ne séddale dañ ko def ci li nga ku ci nek ñu ko duñu xamé dal école bu nek ay jafé jafé fumu tollu ci lañ koy fas défé